mbokk di al لقمة tayib soose kenn ku nekk yëg na fitna ji nga xam ne ci la nekk te ab dogal teg ko ko mu yeyoo mbokki jullitam rawatina ñi nga xam ne dañoo nekk ci toolu diine ji di liggéey ñu taxaw ànd ak moom ba fitna jooju mën a génn ci moom xam ngeen ne li ñu tuddee fakaakul asir muy koo xam ne prisonnier la nga fexe ba génne ko boroom xam-xam yi gëstu tey ci wàllu fiq dem nañ ba gis ne sax ki nga xam ne yoon da koo teg loxo te fekk alal lañ koy laaj moo tax mu tëdd fa mu tëdd te alal jooju ñu koy laaj doon du woon loo xam ne lu muy foyee la wala dafa jubloo jalgati ba loola dal ci kawam ndax ku loola tax a jóg moom yeyowul dimbali waaye koo xam ne njuumtee la dugal nag kookaa tax ñuy wax kooku boroom xam-xam yi tey gis nañ ne li ñu tuddee itqu ba sax muy léegi-léegi nit def loo xam ne dañ koy wax goreel goreelub jaam moo la ci mën a génne waroom xam-xam yi fiq tey dem nañ ba gis ne kay goreelub jaam te jaam amatul tey alal joojee su ko defee ci ki nga xam ne yoon da ko teg loxo teg ko teg loxo goo xam ne xaalis lañ koy laaj loola mënees na ko caa def ki nga xam ne bor da ko dugal ci kaso bokk na ci ñi nga xam ne sañ nañoo lekk asaka mooy dugg ci alxaarimiin yooyu yëpp boo ko xoolee nga xam ne côté fiq la nga wëlbatiku xool nag diggante mbokkum jullit ak mbokkum jullitam moo xam ne ab nattu dafa tege ci kawam te jalgati taxul nattu boobee tegu ci kawam kooko day jaadu ay mbokki jullitam ñu taxaw ànd ak moom ba loolee mu génn ci loolu moo tax ci turu gurubu ñi nga xam ne ñoo nekk ci alfatawa muy gurubu soppe yi alfatawa ñu ngi leen di woo yéen jullit yépp ci turu groupe boobu yi mbokk moom yi lu waay am ñi boole ko dimbaleeku ko moo xam nag ci wàllu organisation ba ndax kay joxe day jokkoo bunt yooyu yi nga xam ne moom la Cheikh Abdallah tudd moo xam compte bala moo xam da ko jaare ci Oustaz Fadel Gueye wala waa groupe Al ci boppam dañoo organiser seen organisation bopp boo xam ne dañuy dajalee la ñuy dajale ba noppi door koo ŋàbb dem ca al oustaz Fadel Gueye teg ko ci loxoom yoon wuñ ca mën a suubare suubu rek baax na moo tax nun noo ngi woo ñëpp ñu nuy dégg ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk ci bitim réew ku yor ñaari dërëm def ca ku yor million def ca ku yor fukki million def ku mën a fay lépp it fayal lépp kon daal kàddu la goo xam ne bari wuñ luñ koy yëkkati ci fataawa sooy boo ne mi ngi doon a am sax waaye nag li tax ñu yëkkati ko dafa doon loo xam ne lu ko jar